jataay bi di wone ne li war a am rek moo am loola mooy bisu boroom daarul moo teg sëriñ dañ koy defe fii ci daarul moxti waaye yoonu wurit yépp a ko bokk lislaam jëpp a ko bokk te bu ngeen déggee tur yi nga xam ne yépp tudd nañu leen ne ñëw nañu siyaare si sëriñ bi ànd ak moom bis bi xam nañ ne yoon wi yëpp ànd nañ ko moom diine ji yëpp ànd nañ ko moom loolu mooy li nga xam ne moo war a am te am na kon nag dañuy ñaan yàlla sunu boroom mu may nu nii nu ko fekkee te ñaanoon ko ko daaw mu may nu ko te ci coobareem rekk la ko defe waru ko nu dellu ñaanaat ko ko mu may nun fekkewaat ko ay ati ati at te ànd ak tal fekke gu ànd ak tal moo mat a ñaan yàlla defal nu ko di la nuyu di la delloo ab nuyoo ministre bi Gallo Ba ci turu sëriñ bi di la leeral ne jataay bi nga xam ne moom moo nu dajale tey nga xam ne dafa mel ne ci la ñuy waaj a tëjale li ñu doon def ci fan yi yépp wala ci weer yi yépp ngir waajal màggalug Daaru Muxti àndoon ko ak li ñu tuddee CLD bi ànd ko ak li ñu tuddee bi ak préfet ànd ko ak gouverneur CRD bi mm-hmm. loolu lépp ak jox ko yi nga xam ne sëriñ bi jokkale na ko ci mbooleem ministère yi nga xam ne seen loxo war naa yëngutu ci màggal gi yooyu yëpp nag bañ ko àndee di ko dox ba bisub tey dafa mel ne jataay bi moo war a wone meññetum lan doon dox ci fan yooyu yépp ñu lay seereel ne mbooleem service yi nga xam ne àndoon nañoo ñoom ci liggéey bi te jàpp naa ne suñu toogee fii di wax ngir lu neex kenn sunu borom dana nu jëppi ndax defal nañu lu war a dox suñu digganteek di wax lu neex kenn ngir bëggal ko dara wala wax wutal ko lu neex benn mu jaamala du ci am service yi nga xam ne ñoom la seqaloon liggéey boobu yépp te mën nañ ko tënk ci gouverneur ndax moo yëli région bi yépp ñu lay ne sant nañu ko ak mbooleem ñi ñu àndaloon ci liggéey bi yépp service yi nga xam ne waroon nañoo taxaw ci ci ci màggal gi ka ca jiitu woon nga xam ne moo njëkk a tàmbali liggéey bi te mooy waa Sénélec ñu beral leen loxo ne nañu jotal kilifteefam ak ak ministre am ak ñëpp ne ak kilifa gi lañ leen lañ leen santoon def nañu ko ba jàpp nañ ne tax weesu nañu la ñu waroon a def te noonu mu ko mu ñu ko defee ñoom mën naa ne li ci ëpp ci service de yëpp it noonu la ñu demee nañ ko tënkee noonu kenn ku ci ne xam ne baat boobu ñu wax ci ci Senelec yow itam yaa nga ci biir loolo kon jàpp nañ ne li ñu àndoon ak ñoom matale nañ ko waaye sëriñ bi dana matale sëriñ bi li muy matale mooy ak ñaanam moom la am te waar bi mu yor du booy mukk ñaan nag mën na lu ne te réew mi ci boppam soxla woon ñaan ndax jàmm ci la lépp xaj kon ginnaaw bu ñu la dalalee ci darajay walla ci melokaanu ndaw lu ñu yónni ci ak ka ko yónni dañ lay wax ne la ñu jotalal kilifa gi ne ko sëriñ bi day fi mu nekk mooy njabootuk boroom daarul mooti gii yàlla teg ci loxoom ci coobareem dëkkub boroom daarul mooti bii sunu boroom teg ci loxoom ci coobareem loolu mooy itam waxtu wu nekk ci loolu lay yëngatu ba tax na nag képp koo xam ne soxla nga ci ñaan gi mu yor yaakaar nga ñaan gi mu yor yaakaar nga barke barab bi ñu nekk nanga ko jàppale ci bëgg-bëggam yooyu mooy dëkk bi ak njaboot gi ndax ku leen jàppale rek ku leen taxawu moom nga ko defal ndax mooy li war a am kon nanga ko ko jotal ne ko xam nañu lu mu tàmbali woon ba ci bâtiment bee nga xam ne tabax na ko waaye nee ko la fa des ci lu ñu war a def lépp nag boo jógee fii yow na daal di doon tàmbali mottali loolee fa des lépp ndax it nag am na loo xam ne su ko nit defee la koy gën a taaraal rek mooy la ca gën te yaakaar naa ne loolu incha allah du taxaw ndax moom ci boppam wax na ko leneen la ca des moo di ne bët ki démb directeur général u OFOR ñëw na fi xoolal boppam seetal boppam dugg ci biir ay kër dugg ci ay wanag dugg ci ay toggukaay di xool ba xam ndox ma nu mu mel ñu tàmbali forage boo xam ne moo war a nekk juróomeeli forage bi xam naa fan yu néew dana bënn loolee lay mën a tax ba su sottee fu waay mën a nekk mu fekk la fa te ànd ak jàmm loola itam mu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax dañuy wax ni bu fekkee ne fa ñu jëm dañ fa àggagut waaxu si leen faaw muy am loolu moo tax ñuy fàttalente te xam ne li ñu bokk te mooy réew mi di bokk gi wala fi dañu wax naa kenn mënu koo xarñaar ñaar ah kay waaye des koo warut a te buñ ko xaree ñaar du baax kon lii mooy li nga xam ne mooy taxawaayu sëriñ bi ci njaboot gi te war koo ànd ak yéen ñi nga xam ne yéen feete ci wet gi ci des ay yoon ci biir dëkk bi baraana ku nu xeeb wala mu yab nu dafa defe ne danoo doxut lan war a dox wala waxunu lan war a dox wax wala sëriñ bi defut lan war a def nekkoon ba nëgë ni suuf yi jeex na waaye déedéet ci sëriñ Mouhamed Awa Balla ba nëgë ni ku fi toog ku nekk yaa ngi def sa kemtalaayu kattan waaye yàlla sunu boroom bu nee li may def ëllëg ci ajjuma ji laa ko laa koy sottal nga ne tey ci tey ci alxames ji laa ko bëgg day metti rek waaye du soti moo di mu dabbirul umur lépp moo ko yor moo dàq planifié ñëpp ñëpp moo daq programme ñëpp kon nag yaa ngi koy sàkkul ñaan moom ki yàlla teg ci bopp réew mi na ko yàlla dimbali ba nga xam ne sunu mbedd yii bu ñuulee ñu xam ne moo ko fi def bu demee bàyyi ko fi korniis bi ñu natt ko nattati ko ay yooni yooni yoon ak waa Ageroute ay Promoville fu nekk def nañ ko ñenn ñi sax dañuy jàpp ne eh, am na leneen lu lal ci suuf déedéet ñun dañuy gëm yàlla ne tawhid mooy li ma wax léegi dañuy gëm ne biir bi suñu borom bis ba mu ko dogalee rek lay am waaye keneen mënta mënta am ci diggante bi leneen ndax ki war a def def na li mu war a def wax li mu war a wax loolu rek mooy li ci nekk kon nag nañ nu sangal suñu dar sang seenub dar defar liñ bëgg ci ci dëkk bi bu ñu àndee rek xool na lii mooy li nga xam ne mooy li gën ñëpp dëgmal ci faw loolu mooy sot loolu mooy li nga xam ne dëkk bi soxla woon na ko loo xam ne koo gis ku nekk xelam a nga ca loola ndax ci màggalug daaru gii daaw dafa bari oto yoo xam ne dikk nañu ba mesere dëpp dikk ba ci dugg dëkk bi dëpp te dara waralu ko lu weesu lu may benn duggukaay rek la am soo duggee ci biir doo am foo doo xam foo jëm ku fi miinu da nga daal di walbatiku dellu waaye loolu lépp nag bu ñu xoolee ba ko fi sëriñ Touba di yabal te keroog bi mu wàccee fii ñu gajj ay ngeer def ko am mbaar ba tey mu mel nii ka am loola mën naa am lu ne gàjji geer ba mu nekk njëndi ku ko yàlla may mën nga am lu ne yàlla na ñëw te gën ab jaam buy ñaan day ñaan lu li muy ñaan boroomam na ñëw te gën waaye ka gàjji geer ba muy njëndi mën naa am lu ne mën naa am lu ne dafa jot ñu wax ko dafa dafa dafa dafa jot ñu wax ko dafa jot ñu wax ko ngir demeleeg fekkele yi dafa bari du lu am solo sax nag ndax demeleeg fekkele ci lañ ko fekk ndax gis nga bis bi nuy wax nii muy sëriñ tuubaa ak boroom Daaru Mooti sëriñ Touba bi lu jege ñeen fukki at yoo xam ne tubaab bi bi mu ko tàmbalee xool di ko teg bët ci mujjug Mamor Anta ba ni mu demee Gabon ba ni mu demee Mauritanie ba ni mu demee Thiéyène ba ni mu dellu siwaatee Njaareem ba ñëw ci barabam bi mu jege ñeen fukki at ay ay ay ay ay rumeur rek la dara luñ la mas a wax ne la nangam jee tax ñu yóbbu ko Gabon wala nangam ji amut dañoo defee nekk foog na ñoo nee nañu rek waaw kon rumeur moo tax du du lu am solo waaye dangay fexe ba bu bu résultat résultat résultat moo dàq xuloo moo dàq xeex waaw résultat moo dàq xuloo moo daq xeex ñu teg ci bët ni bi ngi nii te loolu yàlla dina nu ko defal incha allah ndax borom daarul moo ti Sëriñ Tuubaa da koo desalul dara kon na kenn ku ne buy ñaan bu dee ci nun ñi nga xam ne dañuy nekk ci wetu sëriñ bi di ay taalibe wala ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg ci bopp réew mi kenn ku ne da ngay ñaan yàlla bokk ca loolee ñu xam ne doonoon nga ci dara loolu moom mot moo matu ñaan jot na ñu wax ko jar nañu wax ko ndax suñ ko waxee ñu dégg ko suñ ko jëfee kenn ku ne xam ne la daan faral di xaw ne ah man de yëguma woon wala xaw ma woon loolu du fi am kon sëriñ bi moom bëgg-bëggam yépp ci njëlbeen wax naa la ko mooy njaboot gi barab bu borom Daaru Muxti bi di sàkku itam nag noonu mu sàkkoo koo ko taxawul njabootu borom daaru gi ak barab bu borom daaru gi muy sàkku itam nag ñi nga xam ne ñoom la bokkal boroom daarul moo te ñu dëkk ci dëkk bi rikkuwaay ñoom it nag rikkuwaay ñoom it nag nañu xoolaat boroom daaru moo te ci wormaam ji ci barabom bi ko xool ku ne xam nga ndax yow yaa ngi xotti wormay borom daaru moo te ci barabam bi wala déet sa njaboot a nga koy xotti wala xotti ko wala déet kon bu sëriñ bi taxawee ci wet gi di di di wut luy xéewalal wala luy naatal nañu xoolaat sunu bopp ni ci ni nga xam ne noonu la ñuy ànd sëriñ bi ak sunu njaboot ci barabu sëriñ bi ndax gisoo bu ñuy wax naan barab boo yaakaar barke doo fa sol aw dàll faqanax naa alayka innaka bil waadil muqaddas dëgg foo foo yaakaar barke doo fa sol aw dàll alquran ne ko Moussa summil sa sa sa sa dàll yi ndax dangaa nekk ci barab moo tax dàll yi loxo mën na ko yóbbu fu ne waaye tànk mënu ko yóbbu fu ne kon nun ñi nun ñi fi nekk bu nu sëñ bi dee fàggul it nan am lu nu fàggul sunu bopp lasta alayhim bi musaytir bu ko alquran dee wax yonente bi sallallahu alayhi wax waaye jëru nga yëkkati ab yar di dóor nag la ca des bàyyi lak man bu sëriñ bi wanee aw yoon wane ne ku juumoon wëlbatikul ku xamuloon sa bopp taxawal seetlu ba xam ndax yaa nga ci am déet loolu doy na sëkk booy xool rek daal di xam Cheikh Saalih radiyallahu taala anhu daa wax ne lépp looy def te bu sëriñ bi ñëwee nga daw du lu waaye lépp lépp looy def te bu sëriñ bi agsee doo ca bàyyi dara loolaay la baax ku ne nag xam na xam nga goo xam sa bopp wala goo xam ci sa ci sa ci sa kër loolu nag day day day baax nun itam nag bu nu sëñ bi féete fii nu jéem a féete fee ngir sunu bopp ak ngir ëllëg mënuñu koo mënuñu koo ñàkk a wax ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li li li li li am ginnaaw bi ñu sante mbooleem ñi nga xam ne àndoon na ñoom ñoom liggéey bi waxoon naa la ko ci njëlbeen yëpp ak mbooleem service yi nga xam ne ñoom ñëpp àndoon nañu ñoom ba ci mairie bi conseil départemental bi service yi nga xam ne yëpp dinañ leen dinañu amaan as njataay su ndaw def ko lu ñuy tuddee conclusion boo xam ne mbooleem ñi ci taxaw ci ministère yeeg direction yeeg ak ñi nga xam ne seeni i seen i seen eh, i soxla seen ittey bopp lañu yor seen service bopp lañu yor waaye taxaw nañ ci ñooñ ñëpp ñu sant leen wane ko ba ñëpp dégg ko xanaa nag ñu beral ci kenn koo xam ne moom moo ber moo moo génne boppam fes moo tax muy natiiru sàmm ndax baas bi nu toog moo ko def te moo gën a tuuti ci li mu def ci màggal gi lii nit li kon moo feeñal boppam ki feeñal boppam nag war nañ ko mën a feeñal yal na ko yàlla barkelal yàlla yàlla nangu liggéey bi xam nga sunu borom moom bu nangoo te te rek ko ca rek mën na caa bokk ko yàlla barkeelal yàlla sàmm ko aar ko te képp koo xam ne kii def na lu mel ne moom ci ci ci bis bi doonte kedda laa ëppalee itam la nga def la tolloog loola sunu borom fay la lu tolloog loola ca anam nga nanga nga ko bëggee xaw na gudd waaye da koo laaj moo tax ñu ñu ñu defe ko noonu barab boo xam ne ndigalul sëriñ tuuba moo ko sos bis boo xam ne ndigalul doomi sëriñ Touba moo ko indi yaakaar naa kon loolu moom xéewal rek lay mën a jur barab bi ak li tax nu daje fi lépp ci sëriñ Touba la ñu te ñiñ ko jox nangu nañ ko dundal nañ ko sàmm nañ ko ñooñu kon loolu yaakaar naa ne bu ñu leen bu ñu leen bu ñu bu delloo su suñu xel ci ginnaaw rek dañ xam ne jataay bi bu doon dem ba ngoon it ah dara du ci nekk waaye nag li fiy jógee na dëppoo ak ñoom ñaar ñooñu la loolu rek lañ ci soxla woon ñoom ñaar rek ñoom ñaar rek ndax seen jataay boobee woon ca ndar ci bis bii ba tax Cheikh Mamadou Fadil ne mbégte lay doon lañ fa wax am na lu ci lees ca xam waaye deesu ko wax am na ca lu mën a génn nag loo xam ne ku ko dégg war koo xam war koo gëm ne noona la demee war a ne noona la demee bañ demee ba ca cat la ca jataay ba da ko ni tubaab yi day maanaam uh uh rek nee na dence luñ ma ko waaye nag dañ koo gisut ci man maanaam li mu li mu li li muy wax foofu moom mooy denca luñ ko dara buñ ko gisoon ci moom luñ mën luy nuru xeetu caalit wala dara danañ ko ne fang ci biti moo tax mu ne uh rek denca luñ ma ko lool ci ba ñuy tàggoo baat yu mujjee loolu na ko borom daaru uh rek denca luñ ma ko waaye nag dañ ko gisut ci man kon kon bis boobee nga xam ne mooy bis bii tey te ku fi nekkal borom daarul mooti ba ci sëriñ Basiiru mii nga xam ne yàlla na yàgg bu ko sëñ Muntaxa ne woon soppi leen ko da koy soppi bu ko sëñ Muntaxa ne woon bàyyi leen ko da koy bàyyi loolu moo fi nekk te mooy wéy ba faw na nga wax président ne ko daarul mooti ku la ne day yewoo daarul mooti wala dafa am dara ci borom daarul mooti te nekkul ci ginnaaw sëriñ Basiiru Anta Ñang ne ko waxawul am ah. man ngeen a dégg loolu ne nag ay bëti réew ngeen waaye ku la ne itam daarul muti joxul sëñ Muntaxa cër ba mu war a am ci moom ne ko amut fii la ñu nekk te duñ fi jóge nag ba mukk sunu kilifa ki fi nekkal borom daarul muxti lay doon sunu kilifa ki fi nekkal sëriñ Touba lay doon kun mën a maslaak yow nag dinañ maslaak yow képp koo xam ne mu daaraatu war na seen diggante nga def ko bu fekkee ne li ko li ko sëriñ Abdul Qadir radiyallahu taala anhu dax ne su fekkee ne mu daaraatu bi du yàq seen diine waaye maslaa mu yàq diine nag taxut ñuy wax waaw la taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq wut lu neex nit ba jaare ko ci lu naqari sunu borom loolu baaxut yàlla na ci yàlla musal lii daal mooy li nga xam ne moom la ñu sëñ bi santoon ne incha allah suñu jógee danañu àgg ci moom ngeen siyaare ko mu ñaanal leen waaye ñun yër dañ ko yërëm ci jataay bi waaw benn rek moo ci def dama ko wax te xo te te xooluma ko <laughs> ci ci ci njàngin yi la bokk ngeen baal ñu de ay ndongoy daara moom mm. waaw ay ndongoy daara ay ndongoy daara waxtu dañu mel dañu nekk ca daara ja rek waaw <laughs> ah, defe naa conseil départemental la may fàttali waaye ba tey baax na rek na xam naa ne moom mel na ne dama koy bàyyee ak euh, préfet laa koy bàyyee rek moom saw bu ko defee moom ndax département bi moom yaakaar naa ne <coughs> Euh, sant nañ bu baax te cant googu mbooleem ñi nga xam ne ñoom nga bokkal dëkk bi moo xam ci pouvoir la moo xam ci opposition la xam nga balaa nit ki doon lenn lenn bala ngay doonu murit bala nga def tijaan da ngay nekk doon ab jullit protestant wala wala wala wala catholique kenn du leen wax murit wala tijaan danga nekk jullit njëkkee woon waaye bala ngay doon lenn opposition wala nga nekk pouvoir nekkal doomi borom daaru moti ba noppi rek ñun doomi borom daaru moti mbubbum doomi borom daaru moti ji la ñuy jiital ci loolu lépp la ca des nag nu waay jëf leen teeg yow nga jëf leen teeg ak moom sëriñ ma sàmba Diop Sam dafa ne woon ku fi ne ñukk sëriñ bi mën a la fi xaw ma lu tax nga ne ko fi ñukk waaw loolu loolu mooy fulla ku fi ñukk sëriñ bi mën a la fi ñukk ndax xaw ma lu tax nga ne ko fi ñukk waaw kon nag ñoo ngi lay seedeel ne liggéey bi sotti na ci rafet na ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp buñ ko sañee it mën nañoo wax ne di jéggalu ñëpp ci jataay bu yàgg bi ñenn ñi dañuy wax ne ab jàngalekat day bari wax waaye du du lu am solo ndax looyu lépp looy wax te bëgg ki nga koy waxal xam ko da ko koy jox am misaal moom ko mën a xamee loolu mooy tax muy gudd waaye du du lu am solo mboolem ñi nga xam ne tudd nañ fi seeni tuur ñoom ñëpp ñëpp ci ñëw siyaari sëñ bi wala ñu teew ci jataay bi ne leen leer ne am ngeen suñu sant am ngeen suñu ngërëm bu kenn defee ne dañoo dañoo jagleel kee cant bàyyi la déedéet bu doon lu ñu xëccoo jàppal ne kenn ëppale wala ci yéen ñëpp nag waaw noonu lañ ko noonu lañu ko noonu lañ ko séddalee ci seen biir yéen ñëpp moo xam ñi nga xam ne dañoo nekk ca daara ya bi weer yi teroo ña ngay taxani ña ngay def nangam ña ngay def nangam ña ngay def nangam ña ngay ña ngay ña ngay ca waañ yee ñoo ñëpp a ji dugg xam nga mbokki Modou Diagne Fada yi dañuy xaw a am bayre ci wet bu joxe dañuy def ñooñ doo nga jox déedéet mbooleem ñi nga xam ne jigéen ñeeg koo ñeeg ñëpp xam dañ doon sonn ci màggal gi ñëpp ngi ci biir ngërëm loolu waaw ndax toog ci barabam ñu indil ko fa ak xéewal mu di ko xéewla bu dul woon kay ka xam ne moo nekk ci tàngoor loolu du du son kon ñooñu ñëpp ñu ngi leen ciy sant ñu ngi leen di gërëm ci taxawaay boobu yëpp te ñaan yàlla sunu borom mu may nu waat ko déwén yu baree bëri déwén yooyu buñ ci yàlla ak jàmm man naa am xëy na lee bu bis baa danañ ne tey jii mooy élection présidentielle 2024 ngeen bàyyi ko xel ndax nag nun màggal nooy xool nu ñuy def wala yéen yéenay xam ne ngeen def waaye jàpp naa ne mën naa nekk ñu ne tey jii de mooy mooy mooy élection présidentielle Sénégal 2024 mm. wala ñu ne démb la woon loolu nag li ma ta li ma ta wax du loolu li ma taw ma ñaan yàlla fekke kook jàmm bu boobaa pexe du ñàkk des na xam fees di teg tànk ak nees koy defee ndax yàlla rek moo mën a programme moo xam lay baax moo xam lay lay lay lay jubal yàlla nu yàlla nu jubal te may nu nu topp ci ginnaaw sëriñ bi di wéy ci ay ndigalam di daw ay tereem te lépp lu mu lu mu bëgg mu gis na ci lu mu bëggul bu mu seen bu mu dégg di leen seddal yéen ñëpp it ne mbooleem ñi ma àndaloon comité bi liggéey bi sant naa leen wax naa ko sëriñ bi te dina ko ko seedeelaat ndax noppal na ma noppal nañu ma ci wet yu bëree bëri mbooleem ñi nga xam ne itam mooy wàllu presse bi moo xam lu ñuy gis la moo xam lu ñuy dégg la moo xam lu ñuy lu ñuy lu ñuy jàng la ñett yëpp sant nañ leen gërëm nañ leen bu kenn jàpp ne nag sa morom da laa ëppale ci cant ga ci li ma waxoon lii bu bu bu ko xëccoo rek bu ko ko bàyyee yéen ñëpp a ci yem ci cant ak ngërëm ndax defal ngeen ñu liñ ci bëggoon kon maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ñu fekk ko déwén yu bëree bëri wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.